maa dee rek daal marché Gueule Tapée bi ma problème yàgg na parce que marché Gueule Tapée parti moo fi amoon problème boobu moom arrêté di 142 cantines ñu wax ba war a defar 142 cantines yooyu ñu toj ko ba pare maire Ousmane Ndoye continuer euh, di toj marché bi su toogee ab diir fexe ñëw ba nax ñu toj leen daal di demaat keroog biñ mujjee dajeeg moom réunion dañ ne ko soo andee autorisation arrêté arrêté tribunal bi maye ñu toj marché bi su boobaa ñu jël kayit bi jox suñu avocat mais su dul lool euh, virgule duñ ko bougé fii te itamit maanaam ñun euh, rey la ngay dund euh, defe naa nga dee benn yoon moo ko gën sun alal ji su yaakaaree ne ñun dañ koo for wala yooyu dañuy nax seen bopp parce que ñun benn dañ ne ñun arrêté bi bokkuñu ci léegi nag su ngeen ñu ci bëggee boole nii ngeen mën a def maanaam da di euh, ñëw discuter ak ñun yóbbu ñu ci site de recasement jox ñu dédommagement manque à gagner ba nii may wax ak yow Ousmane Ndoye amul si de recasement taw canal bi nga xam ne moom Ousmane Ndoye ci boppam moo ne woon canal bi dafa màggat ba toj dootul nangooti kenn teg fi lal fi bagage kaw canal boobu la jël ay cantine fer teg ko fa jël courant def fa Euh, dugal ko ay nit ñu ne ko nag ñun loolu moom ci àdduna dara duñu ko jaral kaw kanaal bi maanaam ñun suñ xel sax nanguwul dem ci kaw canal bi ñu ne ko su dee am nga site de recasement defal ñu dédommagement manque à gagner su boobaa loo bëgg ñu defal la ko boobaa ak léegi woo nañu fukk yoon ak juróom bañ na ko ba suñuy woo sax danaan ñu ñu leen di ñëw Bourguiba ndax maire euh, maire ba dañoo bari wax su ngeen fa ñëwee coow li day bari ñëw leen Bourguiba fekk ma fa mais buñ fa demee bi ñuy suñuy génn dañuy suñ xel day dal mais suñ toogee une semaine dañuy gis ne lim ñu waxoon daara du ci dëgg noonu la euh, nekk ñun nekk ak ñun ba mujj ñun dañ cee sonn ñun nag suñuy disposition yëpp jël nañ ko ñoo ngi jokkoog suñu avoca ñii nii bi ñu yëgee seen information bi def nañ plainte contre x jox ko commissariat bu quatrième loolu lépp def nañ ko léegi nag ñun suñu warugar daal mooy ñoo ngi fii toog di leen xaar sun alal la sun alal nag moom euh, lu mu leen jaral rek ñun danañu jaral lu mais génn bi daa jaarul yoon xoolal lii lii nii xoola gis nga lii arrêté biñ doon lii dañ ne woon dañuy raxas biñ ne dañuy raxas au lieu que ñu raxas dañoo bi ñu génnee euh, borom table yi ne dañ leen di raxasal nga xam nga arrêté baa ngi nii. nañ dañ ne table yi nañ génne ñu dañ ne table yi nañ génne ñu raxasal leen. bi ñu génnee dañoo ñëw toj seen i table ñoom ñëpp rajaxe ko. ci noonu ci dara am tey jii nag la Ousmane Ndoye yabalaat lu mat lu lu mat 60 euh, nervi ñëw ne dañuy dal suñu kaw mais ñun liñ gëm. suñ doon kenn nit sax ñun gëm nañ ne ñoo man saaya parce que ñun ngëm-ngëm la ñuy doxee te suñ alal la ñuy défendre te nag defe naa ñoom ñi fay ay 5000 ak 10000 defe naa ñoom lu leen jaral ñun danañ jaral lu ko ëpp loolu daa lay normal ba projet bi commencé ba léegi alal li ñuy projet sàcc la du projet état ndax bu doon état waxaanu ci normal ci normal man place sama place ma ko jëlee na 27 ans def naa indicateur fukki at ak juróom-ñett nekk ci àll bi doole néew doole ma ne naa jël sama place ma jël sama ñaari place doone place a moo ma ci turam laa jóg beneen place ma jënd Asuba moo ma ko ci turam ñu def sama mutation lépp yor samay këyit ñu xëy xëy ajjuma samedi boo gën daan ne daan place bi joxuñu benn formation deuxième dafa am C am B am partie chinois lépp ñu def ko si def ko ca canal bi. ñun yore parti benn nag léegi boo léegee bu ñu fa demee lan ngay pare santé wax naa commissaire doo kër bu ñu nee naa ko tubaab këyit la xam comme tubaab bi këyit la xam nag ñun ñor suñu këyit nan ñu teg ko wóor ñu ne ko teguñ ci wóor suñu àll suñu bakkan lañ ci lañ ci teg tey lii ma la waxoon booba léegi maa ngi sama 72 ans jël sama ñaar place yi xanaa nga jël sa bakkan doon ko jël wala ma jël sa bakkan doo ko jël dàq ma ci ragal ma ci dama dem andi ko rek fukki at ak juróom ñett loolu la ma lañ ko ci àll bi ba suñu tubaab may sama doole wàññi ku ma ñëw dama toog sama dóom doomu Sénégal la comme ñëpp nekk ci marché bi lépp 40 ans kon marché bi yaakaar naa fu xam ne na te bu ne état dañoo waxtaan ak ñun teg si yoon bi cëng comme nag procès sàcc la ñu bëgg ñoo bëlëfee daal ñu daal suñu doole loolu du ma sa jàll te du ma sa jàll te loolu moom lii ñu ngi loolu lang na waaye lii suñu gënoon lang na waaye kon bu yaakaaree rek mën na ma bëlëfee wala ku nekk lu ko def sa kër chef du parti